bismillaahi arrahmaani arrahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah tey mooy guddi ñaareel ci koor naafila gi tey juróom benn rakka la kon mi ñetti sëlmal rakka bu ne fatiha benn yoon inna a'taynaaka al kawsara fukki yoon ma baama ko juróom benn rakka la raka bu ne fatiha benn yoon inna aataynaaka al kawsara fukki yoon